salaamaaleykum mbokk internet yu Sans Limites TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun tey ñu am mbégte wu dalal nga xamante ni euh, moom mooy Moustapha euh, sëñ Moustapha Samb euh, di opérateur économique waaye nag di xarit ci ki nga xamante ni moom mooy général mussa Fall bi nga xamante ni jamono bi moom moo jiite li nga xamante ni moom mooy gendarmerie nationale balaa ñu sori ci waxtaan bi nag dañu koy nuyu baax mu nuyoog mbokk internet yu Sans Limites TV ñu leen di fay. di nuyu waa Sénégal yëpp ok ngi leen di fay di nuyu waa Sénégal yëpp dëgg la li ngay wax xaritu général Moussa Fall c'est vrai dëgg la mais xarit indi mu fi xarit dëgg moo ma indi sama réew moo ma ñor kon su ma gisee ko am yenn critères yi am yenn jikko yi da nga ñor loolu moo waral loolu ak leneen nag leneen. balaa ñuy ñëw ci sa digganteeg général Moussa Fall ak liggéey bi nga xamante ne président Macky Sall daf ko dénk depuis deux mille vingt et un euh, bu bees bi en tant que citoyen ban gis-gis nga ci am. di ci am yaakaar lool nag lool di leen ñaanal luñ songu daan ko réew mi ko laaj réew mi soxla woon changement te ñoom lañ ci yaakaaroon kon yàlla bu yaakaar tas réew mi ñoo leen fal ci kàttanu yàlla mu jor leen seen bakkan jëral leen lu nekk nit ñi dee ci seen alal yàqu ci gi am ci ñoom yaakaar kon loolu c'est important ñu xam ko ñoom yàlla na yàlla defal leen ndam yàlla buñ juum parce que bu buñ juumee rek ça va pas du baax ci ñoom du baax ci Sénégal kon ñoom yàlla buñ juum góorgóorlu. est-ce yaakaar am na. cent pour cent ni mu bindoo. cent pour cent yaru nañu am ñu gëm-gëm réewuñu béyuñu te duñu ay politiciens. ndomb tànk gëm naa ni xeeb nañ ko parce que déglu naa leen liñ leen jox ak fañ jëm dafa sori loolu kon euh, macha allah daal la mën wax pour le moment. Euh, am na ci euh, app général bi nga xamante ni moom nekkoon na ci moo jiite woon gendarmerie bi sax ñu ko wax Jean Baptiste. Tine mi nga xamante ni moom moo jiitee jamono bi ministre de l'intérieur coowam nag ba ñu ko ba mu amee trois mois ci li mu war a retraité suñu ko daal di dàq indi général Moussa Fall euh, tey ñenn ñi jàpp ni yàlla àtte na noo ko gisee moom ñu ko falee ministre de l'intérieur. bon loolu du ma ci sori franchement parce que xëy na dañ ko dàq parce que dañ ko war a dàq wala dañ ko war a dàq vraiment nag man du ma ci ñoom mm-hmm. mais gëm naa ne daal nit ku baax la. ku am gëm-gëm la ku gëm li mu doon la moom loolu wóor na ma ci moom dàq nañ ko nag autre chose nañ ko c'est très normal parce que nit ku baax la kuy wut général bu digne bu am fit bu am ngor am gëm-gëm doo ko fi bàyyi loolu leer ma. loolu leer la bu ñu ñëwee ci général Moussa Fall général Moussa Fall euh, ci deux mille vingt et un bi lañ ko daal di jox gendarmerie mu téye ko. jiite képp kuy gendarme fii ci Sénégal daanaka mën nañ jàpp sax téye armée bi moom ci palam juloon contestation ndax dafa fekkoon ñuy manifester ndax dafa tombale sax mu waroon a âge de retraite am ñëw ñu daal di koy jël ba nii mi si trois ans coow li nag bari na ci moom noo ko gisee xaritam bon ni moo gisee man général boolema ak moom général moom boolema ak moom jikkoom boole ak moom ak fit ak ngëm-ngëm. dañuy wax ne est ce que dina am général yu mel moom sax li ma xam laa wax de xamuma keneen général sans façon la nomination bi lu ko mérito la lu mu jàng lu mu grimpé la ba jot ci ay diplôme am ko nekk général la bu am gëm-gëm du ku ñuy manipuler te bu jóg jotee dana jóg te man nag de passage maa ngi koy nuyuwaat encore di ko sant ne ko nag réew maa ngi ko ñu bari ñu ko ñaanal xam nga ñëpp la ñaanal moom koy wax ñi xam dara am ouverture wër àddina bi dem Afrique ñu gis li xew ci réew yi ñu ngi koy ñaanal parce que xam nañ ne bu tout moment ñu ngi wax 60 morts mais 1000 morts dina fi am parce que Sénégalais ak na fam kenn mënu leen téye ku leen téye wutoon ci pale lañ jëm te bala ñu àgg pale kon ñu rey kilomètre junni nit àggoon nañ foofu loolu nag la ko def Sénégal xool Sénégalais yi du Moussa Fall le président Macky Sall lañ moo def loolu ci xolu Sénégalais yi retraité régg na suur na li mu tal mooy jaamu ji yàlla encadré njabootam li mu def kenn du ko defal du defaat li mu defaat tene bu feere ba musal dool na ci sëkk dool na ci sëkk ak barke dana dem jaamu ju yàlla liggéey yor njabootam lenn état soxlaat ko ci sax rek na ci rek dem bi nit la góor la kilifa la Sénégal kuy soltu ne ko kon nag benn benn yu ngi dégg ñu wax lu ñaaw day indi mënta ñàkk nit ñaa ngi jël sa fekk nga xasal ma diw mu xas la wala fenal mu fenal la dégg nga waaye léegi événement bi jeex na kooku wax loolu seen na ñu bis na bàyyi ma retraité mu ñu wax loolu li mu wax bu fekkee ñeme na dëgg la bu dee dëgg laa wax man weddi ma ko xam moom la engagé man d'accord naa léegi na ñibbi Sénégal bu ñibbi seen tax taxaw wax ko lu mu ko wax parce que ñu gis ay Mollah démb daanaka da ko live toute la nuit Mollah Morgun dem ñu gis ni daanaka daf ko daf ko directel moom général musa Fall di indi ay di génne ay ay ayibam di teg yu bëree bëri mu koy tuumaal loolu tamit. xam nga loolu man sama di rien moom jaaxal ko moom moom luy ay Morgun dem ba gën surtout dire que mës ko seetaan moom yëgu ko yëgul sax ñu ngi koy wax lu ñaaw ñooñu nag naa naa ciy def benn parenthèse bu ndaw. je me waaw damay adressé directement monsieur le président de la république Diomaye li moom ñëpp ñu ngi lay ñaan kilifa diine kilifa aada yi na dañ mën nga ko dindi lii trop c'est trop nekk à foo mën na ci Sénégal rek ci àddina bi rek doyul état soixante douze heures mu Sénégal tëj la. jéem na ko ba son nag. bu dee parce que. pardon pardon ma la pardon ma la Macky du kii. Macky du Diomaye mu tëkkale Macky Diomaye Macky il est très bien xasuma ko nag vraiment ngaañu ma ko mais tëkkale ma ko du ma ñaar dama comparé li ma xam mooy bu neexee président Sonko président Diomaye 72 heures mayu ko xëy moor gën a malaa moor gën a dem ak sàmm ñëpp dañu bi Sénégal ñu tëj leen ci kaso bi sanctionné leen ñu bàyyi kilifa diine ñuy toroxal di leen ŋaañ di leen tam nañ ko bàyyi parce que Sénégal yi baaxul loolu ma ciy nuyu nag waa diaspora international maa ngi nuyu yëpp seen mbokk Moustapha Samb nekkoon naa ci yéen jàmbaar ngeen góor ngeen jàmbur ngeen vraiment yëpp dañ la xamut lii am ni ba jaar ba jàll ba ñëpp am ci ndam def ngeen ci rôle bu rëy ma delluwaat nag di leen jot nuyoo seen sëriñ seen xarit sëriñ Abdou Mbacké waaw di xaritu Ousmane Sonko. di as gor su am gëm-gëm su am fit man xam naa dara parce que man toog naa moom président Macky Sall woo ko téléphone karar mu ñëw toog naa moom président woo ko téléphone mu ñëw mu ne ko wol ma Ousmane Sonko dama bëgg mu ñëw ci man ma def ko lu mu bëgg mu ne ko président loolu faat sama ngor mooy mu ko te jomb naa ko. Macky Sall moo wool président Sonko mu ñëw lu bëgg ma jox ko. mu tëj ba ban moment la woon. mu ne dox ma mais même pas un an et demi deux fois ko woo bu kenn ko imposé loolu mu teg ko ci suuf te boobu su bëggoon milliard mu jox ko boobu bëggoon milliard Macky Sall jox ko mais jafe la toog naa président Wade yónnee nañu ci moom mu yor xaalis bu jeex mu ko ginnaaw ndax te boobu mu ngi te amul PS dara am am ku jafe la ci sëriñ si. yëmbu ci parce que regg na doylu na ñàkkam ak amul kenn xamu ko la ko boole Ousmane Sonko mbir yàlla la mbir yàlla ko boole ak Ousmane Sonko ba mu jaral ko lu nekk defal Sonko lu nekk waxal Sonko lu nekk bañ jàpp ne politicien la fekk du politicien du politicien politigul pour député pour ministre politigul pour aw tur am na ko pare avion bi gën a rëy en Europe ñu naan Concorde ba muy su ko génn ñu koy su ko defar moo njëkk a dugg ci jeune africain yi ne Europe wër àddina bi nekk xale bu ndaw mm-hmm. def na ba mu daj ci àddinaam ci dund ku baax la mm-hmm. maa koy nuyu parce di ko ñaanal encore yàlla yéen àgg bu fekk lépp barke yonent bi. ngay dolli ci waxtaan bi ñu tëjee ko. bon waxtaan bi aussi dinaa ci dolli li nga xam ne moo xew muy insécurité bi am transport bi insécurité transport. jar mm-hmm. naa jóg. ak El lañ jox euh, transport bi. waaw xel dal na si moom. waaw xel dal na ci moom parce que du politicien ñoo ngi koy nuyu di ko tallal loxo di ko wax ne ko am nañu xam am nañu expérience suñu dégloo dinañ ko jàppale accident dana wàññi ko dafa am lu mu laaj mooy sanction la laaj rigueur anti corruption bi dafa war a dañ oto bu départ fi jëm Fuuta du joxee mil mille ba àgg deux mille deux mille ba àgg jëm Mali noonu loolu yoon Sénégal wees na foofu vingt morts trente morts suñu réew la am wees nañ ko bu jógee na déggoog transporteurs yi ñoon ñi nga xam ne def nañ am nañ tuuti expérience ci transport dañ ko jàppale sensibiliser ci chauffeur si ak transporteurs yi defar oto yi ba lépp normal am nañ benn compagnie bu bees bindu seen bis transport seen bis transport mi ngi taxaw fii ci euh, Euh, génération foot am na Dakar Touba ay bus yu bees tax climatisé dugg nañ uniquement pour moderniser transport du Sénégal am nañ Dakar Ziguinchor Dakar Touba Dakar Saint-Louis dafa lañ commencé pour le moment amul bagage amul dara ma dellu li ko ñaan encore bu luy passé na arrêté porte bagage yëpp nañ ko dund wàcc bus waaw bis yëpp. mais père xam nga xam nga lii da ngaa war a jaar commercial yaa ngi def publicité seen bis de. waaw mais non dëgg ma dama ne da nga war dindi dindi eh, porte bagage bàyyi ko sànni ko. interdit interdit porte bagage. parce que def ci biir oto quatre-vingts personnes moo doon nekk ay au moins quatre tonnes nga def ci kaw cinq tonnes muy dix tonnes presque bu pneu tojee oto bi daanu. bis warul am porte bagage maa ngi lay ñaan monsieur le ministre boo toogee li nga war a ñu ko def interdit porte bagage ci bis. interdit surnombre client bu ñu jàpp sax na fay 3000 pour te dire na chiffre bi fay client bi fay waaw bu doon client bu ñu fay 3000 ñaar yoon ku ne kaay nga bañ parce que Sénégal dëgër na bopp li koy faj mooy ne client yi nañuy fay ñoom surnombre contravention bu ñu fayee ban pi léegi les gendarmes alkaati yi na ngeen gën a baax a baax man miy wax yéen du ma seen ennemi ngeen dolli am rigueur mooy ci seen bopp ndax am ngeen kilifa yu mat kilifa. ni leen nit ñi yabe ba ñame leen yéen ko def yéen yéen ko def ndax les ale bi bari na ñu ci bari xaalis jane lu nekk te loolu gàcce la ñaaw na ñun autant gendarme ba solitari bu ñu gisee wàccuwaay bi mu jox léegi sax dootoo jox dara parce que da ngaa waaye jox xaalis mu dem rek moo tax lii am ti am man jóge naa fi Tamba di ñëw Dakar gis benn camion bu am dix-neuf longueur mu remarqué beneen bu am 19 mètres def 5 mètres ci diggante muy 40 quelques mètres dama arrêté gendarme bi laa arrêté ñu ko oto bi ñu arrêté ko boo ko arrêté ci may téléphone yi awo damay laa wax ak nit ñi parce que lii oto bi mat 50 mètres parce que boo koy doublé foog oto Dakar la accident yu bari yi li ko indi mooy loolu mais le gendarme ba mu wax yi moom xam ne man ñoom laa bokk kam laa yéene dafa d'accord arrêté ne ko tekkil benn baar bi kon maa ngi leen nuyu de passage góor-góorlu am na loo xam ne yéen ko mën a seen bopp général Fall général Moussa Fall mënu ko keneen ki ñu suba mënu ko mooy wet gore wet lu gore seen der bi tilim naa man nag ci yéen laa bokk seen der bi tilim na parce que ñeme nañu leen parce que ku am xaalis la rek loolu daal du neex def te yéen a ëpp xaalis yéen yéen a ëpp xaalis du ngeen moroom xaalis kon ah ngeen baal ma mais fokk ma wax ak yéen parce que sama xol nag am na solo ngeen gën maa jégal te xam ne nag yéen forte sécurité moom yéen yéen lan am amul lu dul yéen. yéen politiciens yi ak ñi nga xam ne dañoo politique ci jamono yee passé dellu leen ginnaaw xam ne alkaati yi gendarme du ñu i noon du seen i noon ñu ay criminel duñu ay reykat yéen itam du ngeen di noon dellu leen ginnaaw déglu leen may leen jàmm barki démb dama dikk ba Kër Mbay Fall romb benn jeune gendarme muy waaxu jëm si mbaaw mais vers quatorze heures trente mu ngi ñaq tuy xipp ci koor gi son lool dama taxaw wàcc sama verre ne ko pipe mu ges ma ne ko kaay yéeg na ma daw lu mat presque un kilomètre lu diggante bu tori mu taluma nuyu ndax tàngoor téeméer romb ñu mel ni man te ñoom suñu mbokk luñu mais niñ leen diabolisé ba ñu tam leen ba bañ leen erreur la te ku sàcc fii kër kër gu nga woo gendarme wala police ku su ko relax nga woo sapeur kon nañ dellu ginnaaw te xam ne la passé passé na. ma delluwaat di waxaat ci euh, saagakat yi même bu dul dara man booy bañ saaga moom bal naa leen nañ xool ci yàlla li mu wax ci saaga ndey ak wax lu ñaaw jàpp nit jëb tam ko génn ay ñaaw tifam léegi nag yéen ñi yore téléphone yi ci internet bi ma bàyyi leen xel leen képp ku déglu saaga ndey nit danañ jël sa xaalis da nga ko lay yomul xeyam parce que yaa déglu saaga ndey bi képp ku jël sa téléphone nag def ci xaalis saaga ndey déglu ku saaga ndey nit ak ku ko tam nga déglu ko jël sa cent vingt cinq franc bindal la bàkkaar partage leen partage bi booy déggee seen intérêt la li Google di fay dégg nga ak YouTube moo tax ñu sant di partage mais du seen intérêt yéen ñuy jël seen xaalis ñii bu ñu leen wan ginnaaw ñun ñëpp rek beneen kenn du leen xool suba ñu bàyyi suba ñu bàyyi liggéey kon maa ngi sant ñëpp di lu nag gudd na trop mais dafa ànd ak yéene ak waajtaay lu ci baax. yàlla la lu ci dëng man la sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. seqoon nag waxtaan ki nga xamante ni moom mooy euh, Moustapha Samb euh, di opérateur économique yàlla may ko lool ci wàllu transport xam-xamu màcc ci jëm ci wàll wi mais également di xarit ci nga xamante ni mooy général Moussa Fall jërëjëf.